Thank <laughs> you. Toujours dans votre euh, acte du jour de ce 28 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai que présidentielle et la ñuy des Khamantini, bi dépôt de dossier de candidature il def nañ ko conseil constitutionnel lenn Motides, ci des contrôlé contrôler saytu ba Dali valider ay candidature qui n'a nga xamante candidat aux prochaines élections présidentielles di Abdoulaye Silla borom euh, c'est 50 PN moom Dal dafa ñëw indi ben innovation jëmale ko ci campagne à l'américaine ginnaw bi nga xamanteni ni dafa déployer ben artillerie bu lourde jëmale ko ci ay hélicoptère jëmale ko ci ay oto blindé ay auto yo xamanteni ñing ko doon gis ci américains yi bu mu trop jëm ci ménage bi nga xamanteni ni dafa sukkandiku ci monturam adage bi nga xamanteni Abdoulaye Sylla jël na tay jëglal ko lepp lo xamanteni ni dafa jëm ci conquête li nga xamanteni moy suffrage au sénégalais pour présidentiel au 25 février 2024 du dara lu dul benn jeu d'enfant bo xamanteni tay dafa li nga xamanteni mom lañu la exiger logistique bu adéquate jëmale ko ci candidat yi nga xamanteni ni di Abdoulaye Silla, bok ci ka li nga xamanteni ni ABS 24 ginnaw bi nga xamanteni ni lo xamanteni ni comprendre nañ ko jëmale ko ci registre bu précis bi hésiter wul ben yoon pour déployer lepp lo xamanteni ni dafa jëm ci ay moyens colossal pour génnee ben arsenal bo xamanteni ni terrain bi la ko disneel ko ci campagne électorale 2024 bi muy ben posture bo xamanteni ni di président CPN 50 ginnaw nak bi nga xamanteni ni renvoyé na lepp lo xamanteni dafa jëm ci li nga xamanteni moy Abdoulaye Wade en 1988 de ko ci campagne à l'américaine and ci Idrissa Seck comme qui nga xamanteni mo moo directeur campagne am Abdoulaye Sylla dal dafa ñëw pour innover génnee ben altéri artérie bo xamanteni tay tey yaakaar naa ni képp ku ko gis dal dina ubbi say bu baax le président du club de référence nationale ñu dippee ko CPN 50 pour cent ginnaaw loolu nag lenn la bëgg xam dem ci prochaine élection bo xamanteni du am ben panopile bo xamanteni moyen ay moyens yu énorme la Abdoulaye Sylla yëkkati dal di koy dégainer pour acquérir li nga xamanteni logistique de dernière génération jëm ci ay perspectives yo xamanteni campagne électorale rek le pour ñu mëna découvrir les plans xamanteni arsenal logistique le ginnaw suñu xolé dépôt li nga xamanteni moy candidature am foofa ci conseil constitutionnel ABS Madame 24 n'est na ci ay fin prêt yo pour mëna lancer bép campagne électorale pour annoncer li nga xamanteni donne dina doon ben mise bon xamanteni da koy def ci dispositif logistique bu comme lu ñu mëna wax pour gagner li nga xamanteni présidentielle donne ben influence bo xamanteni ki di candidat Abdoulaye Sylla CPN 50 pour ko ci ay ressources humaines jëmale ko ci ay cortège dina refléter l'idée di influence bo xamanteni candidat Abdoulaye Sylla mën na moom ci boppam won ko aduna wërngal këpp jëm ci ay affaires yoo xamante ni dafay sukkandiku ci benn politique d'abord mu jël benn jet privé boo xamante global ak ay range yo xamanteni 7500 de lustre le man dal di koy répertorier jëm ci ben confort bo xamanteni ay fonctionnalités haut de gamme lay donne pour indi li nga xamanteni moy ben temps partout à travers le territoire national d'après suñu sukundiko ci suñu information ay nit lañuy ñuy gis daal rarement ñuy posséder li nga xamanteni moy jet privé suñu sukundiko ci ki nga xamanteni moy Bernard Bernal. Arnold muy première fortune bi nga xamanteni tay France ak deuxième fortune mondiale ginnaw bi nga xamanteni ci actrice américaine bi nga xamanteni ki di Kim Kardashian en outre ki nga xamanteni moy Cadillac bo xamanteni V8 la muy série limitée 2023 ak Range Rover Hollande yo xamanteni ak Olden édition limitée yo xamanteni seulement suñu sukkandikoo ci juroom fukki unités yi nga xamanteni tay produire nañ ko chaque année fépp ci àdduna bi dina doon sel bi nga xamanteni tay ki le président Joe Biden bu Amérique ak ki nga xamanteni moy première puissance mondiale toujours ci logique bobu dal la nga xamanteni Abdoulaye Sylla mom la nek pour gagner artère bobu pour wër le territoire national pour convaincre les Sénégalais pour que ñu votel ko au soir du 25 février 2024 mu sukkandiku ci ben chaîne de logistique bo xamanteni dafa doté wu par li nga xamanteni moy ay Bentley 4 4 édition limitée 2023 ak li nga xamante ni ay voitures yu raar yoo xamante ni dañ ko defaree fii nga xamante ni mooy benn exemplaire jëmale ko ci àdduna ba noppi daal di sukkandiku ci ay boutons or lay doon 24 carats ba noppi daal di joxe li nga xamante ni ay touches de luxe supplémentaires. suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni comportement bi reflété lii di posture leader u incontesté bu Ablaye Sylla bu ABS 24 euh, mi ngi affiché ou daal ambition Bo xamante ni dafa bëgg a dem ci ay rencontre sénégalais yoo xamante ni tey daf leen bëgg convaincre pour ñu remporter li nga xamante ni présidentielle yu 2024 mu doon ben cortège de luxe bo xamanteni war nañ ko accueillir ki nga xamanteni ni Abdoulaye Silla ginnaw arrivé fi ci Dakar au delà de li nga xamanteni moy ay simple exhibition richesse yi nga xamanteni de ay événement la fay indi lumière jëmele ko ci influence considérable bi nga xamante ni dinañ sukkandiku ci ben succès exceptionnel jëmele ko ci affaire yo xamanteni tay ni mën nañ doon lu crucial la jëm ci souligner lepp lo xamanteni tay ni mën na doon engagement dim ci ay causes humanitaires ba nopi dal di indi ay parade ci ay auto yo xamanteni de luxe le comme nuñ koy incarné bép nit bo xamanteni utiliser son notoriété pour sensibiliser wala contribuer ci li nga xamanteni moy bien-être société batay ci bir loolu la sukkandiku dal dans l'ensemble pour xamal ni que ki di Abdoulaye Silla fi ci dakarou dina des lo xamanteni da fay gravé wu ci mémoire ou comme cop ko xamanteni ben moment nga jël ci luxe war engagé wu jëm ci harmonieusement pour rencontrer li di créance yi jëm ci ay images yoo day impressionné ba nopi dal di refléter li la vie et les valeurs de l'entrepreneuriat or comment commun ki ñu ko renseigné dal di ki nga xamanteni moy cellule de communication ci altérie bi nga xamanteni ki di Abdoulaye Silla déploré nako ko pour wër li le territoire national du Sénégal pour briguer li nga xamanteni moy sénégalais au soir du 25 février 2024. <laughs>